leen ndokkeel bu baax ci dellusi bis bi nga xamante ni ci lañu tàmm amal suñu dars bi ak yéen muy fiq ñu koy wax pratique de l'islam ñu nekkoon yéen ci julli ba suñu dars bi passé ñu doon nekkoon ci li nga xamante ni dañ koo sib ci julli tey nag incha allah ñu bëgg a dugg ak yéen ci li ñuy wax mubtilaatu salaat mooy li nga xamante ni bu xewee benn rek bu ci xewee ci sa julli rek julli ga julli ga dafay yàqu benn rek bu ci xewee julli ga dafay yàqu kon incha allah loolu ci lañ bëgg joyal suñu waxtaan tey mbokk yi mbir yi nga xamante ni mooy yàq sa julli mën nañ ci lim fukk ak ñett yoo nga xamante ni benn bu ci xew ci sa julli rek julligo yakkuna dangay e dem jekkas ni ko wat waajaat doogo ñëw julliwaat ndax loolu mënatoo koo defar kon loolu la ñuy tuddee mubtilaat mooy lu yàq julli ba ci jiitu nag mooy yokku farata wala nga wàññi ab farata tey ko yokku farata nga tey ko yokk ko wala nga wàññi farata te tey ko wàññi ko ni bu ci man di doon rek sa julli yàqu na fekkente ne njuum la njuumte la nag yàqu julli fekkente ne la yàqul julli dañu ko dañ koy réparé waat koy réparé ci nañuy julli moom lañuy wax sujudu sala kon yokku farata wala nga wàññi farata lu mel ni ab sujoot nga tey ko bàyyi benn sujoot wala nga tey ko yokk beneen sujoot muy ñetti sujoot wala nga tay ko bañ a rokkoo jóge ci sa jàng faatixa ak saar rek dem sujooti te yaa ko tey mu ne loolu dafay yàq sa julli kon yokk walla wàññi ci julli farata te tey ko boobu dafay yàq julli beneen ba ci topp al akl aw surb lekk ak naan lekk walla di naan ci biir ak julli dafay yàq julli ndax ànduñu sax ndax nit mënul di julli di déeyoo ak boromam di sàqami ci gémmiñam wala muy naan ndax julli déeyoo ak sa borom kon ku ci jëm da nga wara defar ba jekk defar ba sel xamni ni sa borom ngay mo lay recevoir tay ji mo ngay seti ndax kuñ ci waxon da ngay dem seti president wala serigne bi neena nga ñew fa da ngaa nam rek boy dem macha allah am ci lu rafet da ko sol kon rawati rawatina julli day waajal sabab bu baax kon lekk day yàq julli ci biir julli yi mënoo ci lekk mënoo ci naan boo ci defee lekk boo ci lekkee wala nga naan ci rek sa julli sa julli dafay daal di yàqu di wal wala ñu ñuy wax ëf wala walis yooyu yépp àndul ak julli boo ko defee ci sa biir julli rek yàq nga sa julli boo ko defee ci sa biir julli yàq nga di julli di walis di julli di ëf ngay julli di yuuxu mu ne yooyu yëpp moom ci man di doon rek yàq nga sa julli parce que da ngay daal di génn ci cadre cadre euh, nii na mooy dal dal ki nga xamante ni moom ngay am diggante ak sa sa borom beneen ba mooy alqay o di julli ba yàgg nga wàcc boo wàccoo ci biir julli sa julli yàqu na ngay dem Euh, waajaat ndax wat ci wàqul njàpp mais da dem gallax ndikuwaat li nekk ci sa gémmiñ mën a génn nga doogu mën a ñëw nga doogu mën a ñëw julliwaat bokk na ca yooyee nga xamante ni dafay yàq julli itam wax joo nga xamante ni bokkul ci biir julli gi ba pare defarul julli gi ndax bu ñu waxee wax ju bokkul ci biir julli gi li ngay jàng fatiha ak saar di wax allahu akbar sami allahu liman hamida subhaanallahi yooyu loolu ci biir julli gi la bokk léeg-léeg di nga génne ay kàddu yoon ay baat yu ñu xam la ci biir julli yi te day defar julli gi ndax bu fekkente ni imaam daf laa jiite xamatul fu mu toll xamatul lu mu war a def nga wax ko jàbbat ci làkk bi nga xamante ni moom la nàmp wala yow moom nga nàmp pour julli gi defaru loolu yàqul julli waaye bu fekkente ni da ciy wax loo nga xamante ni bokkul ci biir julli gi defarul julli gi loolu dafay yàq sa julli loolu mooy wax joo nga xamante ni bokkul ci julli gi pare defarul julli gi bokk na ci yoy di julli ba yag ngay retan retan ci bir julli dafay yak julli ndax ku saggan rek mom moy def loolu ku saggan rek mom moy def loolu ndax nit bu deyantu ak borom war na fexe ba ba mu ci kanamam ni man suma gisule yalla itam ma ngi jakkar mu ngi jàkkaarloog man mu ngi kenn du nekk ci sa kilifa di fo wala ngay retan kenn du nekk ci sa kilifa ngay ngay ngay ret ndax ñun ñu ñun ñu ñàkk solo ñii rek léeg-léeg nga dugg ci sa néegab kilifa ah, amaana sax doo ñi may yëkkati say bët di xool fa ne ndax loolu bokkul ci yaru waaye da ngay toog fi nga toog benn place xool benn place waxatuma nag nga nekk ci koo nga xamante ne da ngay déeyoo ak sa ak sa borom kon heure boo reetaanee ci julli rek sa julli sa julli yàqu na mooy alxadesu mooy sa njàpp toj ki nga xamante ne dafay julli ba yàgg yëg ni njàppam toj na dajog njàpp mu day ànd ak yàq ak julli ndax la salaata li euh, li xayri li xayri wudu in ndax kii julli te amawul njàpp mooy julleem baaxul te yow amoon nga njàpp ci début bi mais na ngaa dem ba ci biir ñàkk njàpp loolee ñàkk njàpp googee nag moo la xañ julli ga da ngay dem jàppiwaat ñëw julliwaat kon di julli ba yàgg sa njàpp toj ci biir julli gi da nga dagg julli ga fa la fa la fekk fa nga yegee ni sa njàpp toj na rek fa ngay dagg sa julli dem dem waajali ci wat bu fekkente ndaa fekk nga jiite mbooloo ngay julli nga jiite yëg ni sa njàpp toj na fa ngay fa nga ko yëgee fa ngay xëcc kenn ci sa ginnaaw mu ñëw remplacer la nga taf sa bakken mel ni ku yëg ni da ngay buri pour nga mën a génn bàyyi kooku mu àggale ak mbooloo waaye bul sa julli yàqu rek nga yàqaale julli mbooloo mi bul tourné ni ah sama njàpp toj moo tax ba boobaa yàqu nga sa ju sa julli yàqu na waaye yàqaale nga julli mbooloo te amaana am na noo mënoon a jaar ba julli mbooloo mi du yàqu mooy lan mooy da ngay xëcc ki nga xamante ni moo sës ci yow moom mu ñu àggale julli gi looloo tax toujours ñu bëgg kuy sës ci imaam te xam di xam yooyu di nga xamante ne la ñuy daal istixlaaf wóotal di julli ba yàgg yëg ni yow mii am na julli goo bàyyi am na julli goo bàyyi te li dox ci diggante julli gi nga nekk ak julli ga nga bàyyi néew na juróomi julli néew na juróomi julli bu fekkente ni nag ah, ah, ëpp na juróomi julli maanaam nga fàttaliku ne ah man bërka démb kat julliw ma woon ndekete gee bërka démb julliw ma woon bokkul ak loolu loolu da ngay julliwaat gee bërka démb rek waaye par exemple ma may may may julli gee tey ji fàttaliku ne julliw ma suba sama gee yàqu na damay wëlbati julli ji suba julli tisbaar julli takkusaan julliwaat timis doo ko julliwaat gee loolu mooy euh, ngay julli julli yëg ni am na julli goo bàyyi te diggante julli booba ak yi matul ëpp euh, ëppul juróomi julli kon bu ëppee juróomi julli na nga xam ni ëpp na bés ëpp na bés yàqu ko mais fekkente ni matul ab bés wala ci bés la tool da ngay commencé ji fa mu commencé woon ba yegg si ci ci julli googu bokku na ci li nga xamanteni moy yak julli yokk ci julli lu ni tollu te yok googee nekkul ne yow ya ko tay njuumte la njuumte la manam nga don julli suba jum julli ñeenti rak xam nga ni julli nga ñeenti rak da suba nga don julli julli ga yàqu na tani ni benn rakk nga ci dolle muy ñett dañ koy sujootal bu don tisbar nga yokkaat ci ñett rak yek ni ya nga yok ñett rak te du lo tay ndax boko tay mom nga yëg ni yokkaat nga ci ñett rakk rek da ngay sujoot waaye bu xasee tolloo ak julli ga rek julli ga yàqu na kon loo ci juum juum julli gi nga yokk ci lu toll ni euh, farata ja lu toll ni rakka yooyee rek mooy sa julli googee moom itam yàqu na nga koy baamuwaat bokk na ci yooyee nga xamante ni dafay yàq julli mooy bàyyi sujoodu xabla sujoodu xabla mooy nga jamut ci sa biir ak julli nga joom ci sa biir ak julli waroon a def sujjóot xabla maanaam gin avant ngay selmal lu njëkk ngay selmal sujjóot boobu nga war a def boo taaya pare sujjóotaat doo ko taaya war sujjóot boobu ngay sujjóot bala ngay selmal bu fekkente ni da koo bàyyi bu fekkee da koo bàyyi sa xel nekku ci ba nga fàtte ko boo jógee jotaay ba sujjóot boobu mu ne dafay yàq julli gi bu fekkoon te ni sujjóot baax la ki nga xamante ni ginnaaw ba nga selmal boo ko fàtte ko sujjóot ba rek nga def même fekkente ni nag sujjóot xabla la ba jiitu ngay sëlmal la nga fàtte ko sujjóotoo ko ba jóge foofee ci jotaay ba ah, bu xawee diire tuuti rek mooy julli ga julli ga yàqu na ba yàqu na julli ga yàqu na ndax sujjóot boobu moo waroon réparer julli gi tam léegi réparation bi passé na réparation passé na kon bu fekkente ni da ngaa sëlmal rek sa xel dem ci waroon na maa sujjóot avant may sëlmal may sëlmal ma dellu sujjóot defar na ko defar na ko fekkente ni fàtt naa ko ab diir rek sujjóot bu dafay yàqu julli gi dafay ànd ak moom yàqu damay dem damay dem julli jiwaat ba ca mujj mbokk yi kasful awratil mughallas ngay julli ba yàgg sa awra yi nga xamante ni moo tax ñu naa awra feeñ loolu bu feeñee sa julli dafay yàqu julli dafay yàqu tax ñu naa awra bu feeñee sa julli dafay yàqu ndax ah, awra góor lépp Euh, moo ngi commencé ci euh, jumbu xam ba ci ay bëti oomam ba ci ay bëti oomam waaye jamono bi muy julli nag bu fekkente ni lenn na ci kanamam wala ci ginnaawam feeñ na rek mu ne julli dafay yàqu automatiquement kasaalika jigéen kenn ku ne nag war ngaa góorgóorlu ba booy julli nga sol yére yu yiw yoo nga xamante ni dafay matal sa sa yaram dafay matal sa yaram balum ngelaw ngelaw sax sa awra du feeñ ndax yonente bi jàngaloon nañu ne jigéen yaramam lépp awra la ba mu des xar kanamam ak ñaari tenqam ak ñaari tenqam kon muy julli lañu bàyyi xel loola bu baax a baax kon mbokk yi lii bokk na ci yi nga xamante ni dafay yàq julli ñu bàyyi ko bu baax a baax ndax julli nekkul lu ndaw ndax li ñuy jëkk lijjante ci doomu aadama walla gi mooy julli bu baaxee yi ca des mënees na ko négocier waaye bu baaxulee yi ca des deesu ko xool kon nag luñ ciy def ak luñ ciy bàyyi nañ ko bàyyi xel bu baax a baax xam ne ci la suñu euh, texek ëllëg nekk in uridu illa al islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu